gannaaw biñ sante yalla julli ci yoonent bi delo buum rek ca moy mboy ga ndax eh, comme dama koy tamé di wax rek ñun mom gox bi rek lañ am dina wéru koor bi li ci ci wéru koor bi yépp dañoo jëlone initiative man ak sama gaay yi maw ju bax ñima ma danaka chaque jour ñu defal ay ndogu diko yobbu ci daara yi diko yobbu aussi tamit ci bir manam ci hôpitaux yi aussi donc eh, ñu ngi ci depuis démb lañ ko commencé donc pour dimbali nit ñi parce que nak aussi tamit ñep xam nañ actuellement moment bi ñu nek il faut manam moment de dimbal la donc loolu motax aussi à chaque fois rek ñu duñ tardé pour ñew pour ñew di indi ñun suñu dimbal ci fan yi dinañ defal dañuy defal ay sandwich yóbbu ko ci yóbbu ko ci hôpitaux yi di togg ay agne ay manam di togg ay ceeb di ko yóbbu aussi tamit ci dara yi. aussi tamit defal manam dara bu nek nañ fa yóbbu ay jus ak ay ndox donc jox ko maanaam jox ko taalibe yi. donc daal euh, euh, ci fan yi yëpp ci loolu lañ nekk. li ma leen di wax daal lenn la rek moo ñu gën a fagguwaat rek gën a aussi tamit fagguwaat bu baax a baaxa a baax a baax a ndax mbir mi moom cat la rek cat la aussi tamit ñuy lépp lu ñuy maanaam lépp lu ñuy tere rek ñu bàyyi ko waaw lépp loo xam ne dañ ko tere rek nañ ko bàyyi. té nak aussi tamit ñu gëna farlu wat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa a baax gëm na na yalla li nag dina fi jëlé li té du yag dara dara dara inshallah rabbi Doro mom sama mag la sama xarit la à chaque fois à chaque fois bu taxawé ci micro di wax dina ko remercier dina ko wax ndax à chaque fois tamit mom aussi tamit à chaque fois mu ngi xol li kaw la kaw la kanam mu ci ne donc tamit lolu aussi tamit dama la koy dama la koy xamal ngeen kaw la gépp aussi xam ko tamit comme yoonam du ko mayit nak mu kon na indi lepp hôpital rek dimbulenté ak ñoom té xam té su nekkoon mën-mënam day agon na fa mm-hmm. dana boole yor mboolem hôpital bi diiru mbas mi ba ba ba muy jeex dégg yor leen ci ordonnance yor leen ci wàllu dund gi ak lépp dégg waaye nag xëy na àgg yi maam mën-mënum àggut foofa waaye fi mu yem dégg nga dana ko def dégg ngir jàppale it dégg nga président bi nga xam ne moo moo moo na ci ginnaaw mu koy jàppale dégg nga coono bi mu daj ak mébét bi mu am dégg ci aar sénégalais ngir mbas mi dégg nga mën fee yem dégg nga mu ànd ak moom dégg ci liggéey boobu euh, ci wërsëgam ni mu toll da nga xam ne ne jël président ci lenn waaye li mëna a président moy mu jël wërsëgam boobu ko yalla jox té mu ànd ko président da nga jàppale ko ci liggéey bi ba bu président tegi tangam mu jëm faté teg xamna xam ne du ko mën jot waaye mu góorgóorlu ci kam katanam dañ koy rafetlu bu baax baax parce que mbir le mo xamné ñi nekk ci hôpital bi di fi séjourné dañuy soxla xéewal yu melni daf leen di jàppale bu baax ci koor gi parce que ñi si ëpp euh, am na ñoo xam ne si biir Kaolack commune bi lañ dëkk mais ñi si ëpp dañuy joge si yeneen euh, gox yu xala sori yi moo xam Ndofane moo xam Nioro moo xam yeneen gox yi nga xamee ne amuñu mbokk fi te situation bi ni mu demee actuellement xam ne kenn mënul dem kenn mënul dikk donc dañ fi nekk ak seen ay moyens bopp donc situation bi euh, lépp loo leen si def rek bu leen xeeb xam ne. geste la peut-être comme moom ni mu waxee xeeb na ko mais njariñ bi muy amal si ñi mu jëm du ko mën natt te loolu ay xéewal yu yaatoo yaatu la. alhamdulilah wax dëgg yàlla def lu baax loo xam ne mbaax gi kenn mat natt ak yaatum ndax daara moom soo ko defalee bu doon benn benn daara mel na defal nga daaray Kaolack yëpp waaye mel na defal nga daaray Sénégal yëpp rawat na nag bi nga xamee ne ëpp na benn daara ndax ci suba. sëñ Aliou Wilane woo na ma wax na ma ne am na yéene lu mat fukki daara la ma wax nañ ko ko bindal muy toggal leen ndogu ñaari fan tey ak suba xam nga loolu liggéey bu rëy la ndax fukki daara boo leen joxee ndogu ñaari fan kon loolu dafay mel ni que ñaar fukki daara nga jox ndogu benn yoon. man 2012 laa ñëw Kaolack ah, bi ma ñëwee itam di xamante ba yàlla boole ma ak magam léegi itam. bi nga xamé né ñëw nañ fa ñëwoon di waxtaan ma gis ci mom comportement mak goné la waaye goné mak la fa tabaarakallaah bëgg ci mom lool kontaan ci lool na nak ba muy jappalé président euh, Macky Sall ñi ngi koy ñaan papis ñi ngi koy ñaanal yalla ci kaolax ndax kaolax bu do ak dooro waaw magam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 ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba amiina amiina yaa rabbal alamin kontaan naa lool waaw